question bo xamné man dafa ma sax xaw jaaxal dama koy dégg nak ci ñu bare bare bari dima ma ko wax dama euh, le bruit court que da nga am ay ambition présidentielle euh, pour les prochaines élections au départ bama ko jëkkee dégg nak commencement bi ay ree la ma daan def mais légui gis na né dootul ay waxu wax rek parce que mon ngi jël proportion wa ëpp ma bëgg leen wax man Babacar Ngom politique intéressé wu ma politique intéressé ma mosuma intéressé te sax duma intéressé ngén baal ma ma dolli ci touti bi ma commencé liggéey jamono suis Senghor mo fi nek may liggéey Abdou Diouf nekk fi ñaar fukki at moma décoré chevalier dans l'ordre national du Lion et du Mérite Abdou Diouf dem Abdoulaye Wadignou, 12 ans moma commandeur dans l'ordre national du Lion mosuma politique mu dem Macky Sall ñew grand officier dans l'ordre national du Lion mosuma politique li ma ci jot a def nag ci politique mën naa leen ko wax 2012 sama doom ji Anta Anta Babacar dugg na ci politique boobu président Macky Sall mu ngi ut réew mi mu ànd ak moom lu mat ñeent ba juróomi weer di campagne di wër dëkk bi def ci li mu mën ba yàlla def président gagné loolu

li may wax xam naa ne ma ngi koy dégg dina ko dégg ma wax ko ne ko bu yàlla defee nga gañe élection yi dama lay ñaan anta moom ne dellu siwaat Sedima mu ne ma Babacar loolu la ñuy def loolu itam la ñu def dama leen di laaj nag ban sénégalais ngeen gis mu soobu fi ci politique soobu bu toll noonu jël risque yu toll ni yooyu ma jëloon élection yi gagné président ba gagné nga ne ko baax na mu ngi ni defe naa loolu leer na dama ko dama ko yaakaar nag euh, dama ko yaakaar euh, dama defe ne yàqkat ñoo fa jaar parce que xëy na tamit yëngal nañ ci dëkk bi loo xam ne boo waxee club des investisseurs mbaa nga wax leneen am na sax ñoo xam ne dañ jàpp ne li tax ma club des investisseurs xëy na pour préparer surtout bi ma jëlee le docteur Abdourahmane Diouf comme euh, directeur exécutif ñu ne saye de campagne wax yooyu nag nit ñi ñoo ko wax dama defee sax am na ñoo xam dañ ko fabriqué def ko volontairement véhiculer ko ba mu yegg fi mu war a yegg yëpp pour yàq ak pour jaxase mais daal li wóor mooy bu fekkente ne man maa koy tey euh, politique bi may def mooy politique économique man dama bëgg suñu réew mi koom-koom bi nga xam ne mooy richesse bi ñuy créer li ci ëpp muy toog ci réew mi loolu laa yéene pour Sénégal loolu laa bëgg ñu waxtaan ci ñu xalaat ci ñu liggéey ci dañu foog ne politique ñoo yor pouvoir yoruñu ko suñu réew mi ñi yore économie bi te boo ci génnee secteur informel ñi yore économie mooy borom doole yi nga xam ne multinationales yi jógee bitim réew ñoo téye suñu économie ñooñu ñoo yore pouvoir bi waaye nag kenn du leen dégg ñun nag ñu nekk nag di xeex xeexu politicien ñu ngi reyante ñu ngi sànnante ñu ngi yàqalante loolu bu yaatu woon dama ciy wax lu bëree bëree bëri parce que man dama gëm ne Afrique Afrique ñun ñoo xam colonisation ñun ñoo xam traite des nègres ñun ñoo jaar fu bëree bëree bëri ñun ñoo sonn mais vingt et unième bii jot na pour ñu ubbi sunu bët ubbi suñu xel jàppalante bëggante dimbalante yéenente pour mën a dem ci kanam image nit moo koy liggéeyal boppam nit nag mën na jóg pour yàq ko man jóguma woon pour wut image dama jógoon rek pour liggéey dama jógoon pour am parcours ak trajectoire Je xamné mën doon njariñ ci sunu réew ci Sénégal doon itam ci sunu jeunesse pour won leen ne liggéey mooy dëgg de leen liggéey loolu moo ma ci bàyyi ba fi ma des ma am soixante ans ñetti at yàlla bàyyi 21 ans laa commencé liggéey ba tey jii mënoon naa heure bi ma toog noppaliku li ma am mën naa la di ñëw waaye bëgg bu ma bëgg sunu réew ak itam warloo bu ma warloo ak sunu jeunesse pour wan leen nu gëm loolu donte kon nag ñeneen ñi ngi leen di wan leneen man gëm naa ne liggéey rek mooy dëgg.